su Cissokho ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Euh, yow yaay secrétaire général bu syndicat unique euh, démocratique euh, des travailleurs municipaux chargé de communication bu intersyndical collectivité territoriale yaay secrétaire général bu FGTSB. déjà li ñuy njëriñ waxtaanee bokk na ci grève bi nga xam ni itam ba tey yéen mënu leen ko bàyyi ci suuf lan mooy problème bi ak fan la blocage bi nekk. waaw xam nga euh, yenn euh, umpalewu leen ne fii fii def na ñaari at a ngi nii ñun liggéeykat yi nekk si gox goxaan ni ngi si grève sur l'étendue du pays voilà ni ngi si grève sur l'étendue du pays ñu ngi si grève sur l'étendue du pays di laajte suñu benn àq ak yelleef boo xam ne euh, gouvernement bi fi nekkoon daf ñu ko nanguwuloon fay bon deful ay jéego tamit pour ñu dem si benn sortie de crise loolu bu mu amee euh, à l'époque ñun ngi xeex pendant deux ans le premier ministre sortant Amadou Ba. Mmh. yéen ñëpp gisoon ngeen ñu recevoir nañu fi. Mmh. bu ñu recevoir mu ne mu digoon ñu ne dans une dans un délai de dix jours dina régler problème bi. Mmh. mais ñun ñu toog mais bu mu bu mu waxee loolu ñun ñu woo liggéeykat yi ne leen ñu dàkkal suñu grève mais lu ñu def ñun ñëpp xam nañ ko après dafa mujjee dem bañu dem di def campagne électorale. ba yàlla def lu muy def ñoom ñu jóge fi tey mais ñun dañu yaakaar ne euh, syndicat euh, continuité la état du moins continuité la état. waaw léegi euh, kii autorité yu bees yi ñëw mais ñoom xam nañu ne fu mu nekk nii. Euh, jot nañu dossier xam nañu suñ dossier yi nu mu demee. Mhm. donc ñoom seen problème mooy bu ñu ñëwee fekk ay dossier nañu jël dossier yi continuer liggéey bi. Mhm. mais mu ñun mënuñoo toog nag di xaar di jëmale di jëmale xaw ma fan. parce que tey ñun suñu suñu suñu lu ñu intéressé tey mooy dañu jàpp ne état continuité la comme que état bu bees bi moo ñëw tey nañu ñëw régler problème bi. mais déjà Bala Moussa Fofana recevoir na leen lal la leen wax. moom nee na reconnaître na ci légitime waaw ñu ñu ngi ñu ngi saluer aussi ne euh, monsieur musa Bala Fofana ministre de bu ñu recevoir eh. waaw vraiment recevoir nañu waxtaan nañu waxtaan bu neex bon mu nee ñu nag def nañu ay proposition allant ni créer ay commission pour dem vers euh, le le dénouement de cette crise là mais wax nañu ko mais ñun. dañu jàpp ne euh, commission yi def nañ seen liggéey ba pare parce que dafa amoon benn dafa am centre bu fi nekk le centre national de la fonction publique locale et de la formation mais def na recensement du personnel yaa ngi dégg ba génnee na ay statistiques yu wane ne euh, ñii la ñu war a fay ñii ñoo war a xaar nangam nangam donc man defe naa ne ñoom dañu war a sukkandiku si loolu pour pour régler le problème mais ñun ñu mënuñu delloowaat si ay affaire wu ay toog si ay commission commission moom. mënuñu ko mënuñu mënuñu mënuñu si ànd tey mënuñu si ànd ëllëg donc euh, ñu yaakaar ne ñoom su fekkee ne dañu ñëw rek pour régler problème bi ñoom nañu ñu jege euh, nu nu mu tuddati le le le l' ancien euh, kii le directeur du centre national de la fonction publique locale de la formation waxtaan ak ñoom ba seet nu ñu càmbaree mbir bi pour ñu génnee documents yi ñoom ñu commencé basé aussi documents yooyu pour fay mais loolu bu ñu ko deful mais dañuy nar dugal si beneen. si beneen carcan boo xam ne ñun duñ ci génn vraiment ñun daal euh, loolu la ñu la ñu jàpp moo tax tey ñu woote benn assemblée général ah waxtaan ak liggéeykat yi pour ne leen nag ñun vraiment on n'est pas content euh, bon ñun daal lu ñu bëgg daal mooy dañuy maintenir suñu plan d'action boo xam ne décliné nañ ko ba ba ñu woo ñu rek wax ñu mais dañu dañu décliné plan d'action bi ñun suñu plan d'action bi delluwaat ñu si gannaaw lan la dañu mooy euh, les cent vingt de grève ñun delluwuñu waaw ba ñu woo ñu daal nañ ñu woo wax ak ñun wala teg dara lu leer suñu loxo ñu signé ay protocole parce que premier ministre boobu defoon nañu digg diggaloon nañu loolu mais defu si dara ñii tamit bu ñu ñëwee dañu ne ay ay toog di waxtaan mais waxtaan moom mënatul am nañu wax lu leer rek nañ ñu woo nee ñu léegi lii la ñu jéem a fay ñu fay ñu ñu mu jeex. Ah, parce que administration continuité la. mais mais déjà impacte grève bi ci li nga xam ni moo jëm ci askan wi certes ay secrétaire euh, yi nga xam ni yéen a ngi yëngu ci gox ak goxaan yi dëgg la mais askan wi itam mi ngi souffrir ci situation bi. waaw xam nga ñun si askan bi la ñu bokk. mais ñun ñi tamit ñun tamit dañu dañoo xam ne dañu dañu nekk ay liggéeykat yoo xam ne dañu salfaaje suñu àq ak suñu yelleef mais na askan bi comprendre loolu parce que ñun si askan bi lañu bokk donc tey ñun nii nii depuis ñaari at nii xeex xam nga ñaari at xeex si syndicat loolu bare na ah donc ñun depuis deux ans on est là on est en train de nous battre pour réclamer suñu ay droit ñu bañ ñu koo fay mais ñun xanaa nag ñun ñun du ñu toog nag te fan yi rek passé yéen gis ngeen ni yokkal maire yi ak adjoint au maire yi seen indemnité ñu teg si dolli ñu teg si tuuti ñu yokkal les les kii la comment on appelle ça encore les percepteurs municipaux te loolu yëpp xaalis boobu ñu leen fay dañ ko puiser collectivités territoriales ma yaakaar ne loolu provocation lo loolu provocation la et manque de respect la en à l'encontre des travers des collectivités territoriales moo tax ñun nag ñun mënatuñoo nangu loolu ñun lu ñu bëgg mooy ñu fay ñu mu jeex yamane ñooy voilà. voilà ñu ngi wax itam ay euh, probable euh, blocage yi nga xam ne moo jëm ci permis d'inhumation yi information bi tukkeewul si yéen de xanaa. non xam nga man euh, quand j'entends ça man vraiment yooyu moom ay waxu euh, waxu ñooñu ñu koy wax sax war nañuy xoolaat seen bopp parce que tamit toog si réew moo xam ne fii ñun ay ay nous nous sommes des humains Sénégal ay nit yu ñu yu yu yu yu norme yu normaux ñoo fi nekk ñu toog fii tey naan ñu ay dañuy tëj ay cimetière wala du ñu joxe ay bulletins d'inhumé loolu man tuddewuma ko leneen loolu sax ay provocation la di wax wax yu ñaaw yooyu parce que nit tamit day da ngay war a respecter la vie humaine nit bu génnee àdduna dañ ko war a sutural mais jàpp ay nit naan duñu leen jox bulletin d'inhumation ñi leen di bàyyi dans les morgues ñu fay kii mais loolu ku ko xalaat mais ku xalaat loolu xalaat na lu bon loolu ñun newuñu ci loolu ñun en tout cas ñun si lu ñu nekk mooy suñu indemnité dañuy laajte suñu suñu suñu augmentation salaire foofu la ñuy yem voilà dinañu nag daaw daaw dalal defal continuer suñu grève ba pare si si loo xam ne si la ñu lool lool la ñu loo may mais du ñu def ay ay naan dañuy tëj ay cimetière ak yooyu ñun mosoo ñoo wax loolu. ci beneen wàll gi itam euh, Moussa Cissokho yow yaay secrétaire général FGTS B bu fa Sidia Ndiaye euh, yow congrès moom moo la daal di faloon ci wàll wi ni mel mais dañu nemmeeku itam beneen congrès moo fal Mballo Dia Thiam maintenant kan mooy légitime pour jiite entité bi ni mel. xam nga dama dama waatoon ne euh, waajooju ay waxam sax dama si dul waxati parce que man yaakaar naa ne kooku. dafa nekk si euh, si koo xam ne nekkuloo si légitimité ak si légalité di wax loo xam ne amul bopp amul genn man di wax ak yow sax wala di wax say mbir dem ko kii man Sénégal yëpp gis nañ ne man fii ah quinze secré sur les vingt secrétaires généraux bi nga xam ne moo bokk FGTS si ñun lu ñu xam les quinze sont euh, ñoom portés à la tête du ma def fi benn congrès boo xam ne Sénégal yëpp ba ko nawle ma def ñaari congrès benn bu pour SUDTM ñi fal ma benn bi ma def FGTS ñi fal moom mu dem def benn congrès fële Rufisque ak benn benn groupe nitam naan moom mooy secrétaire général FGTS mais ku muy nax boppam lay nax ñun gis nañu lépp mais ñun moom ak ñoo ñooñu faalewuñu leen ñun suñu yónneewul ci loolu ñun lu ñu wóor mooy ñun ñoo am légitimité ñoo am légalité man maa nekk si siège u euh, FGTS man maa toog bureau Sidia man maay déroulé ci FGTS lépp lu fa am man maa koy déroulé moom comme que moom day nax boppam mais bu buggee na dem créer beneen syndicat moo gën si moom mu bañu ñun faluñu ko de travers yi man sax man man dama falul sama bopp man nit yi ñoo ma proposé man j'étais même pas partant pour devenir le secrétaire général de la FGTS mais nit yi ñoo ma nee ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma teg si à la tête du syndicat il faut que ça soit clair dama bëggoon opinion bi xam loolu. man nit yi ñoo ma tànn teg ma à la tête du syndicat man xëccoowuma dara mais moom nag nit yi dañ ko won ne ñun ni ñu doon xoolee Syria gisuñu ko si moom parce que moom du du du du pour ñun c'est pas une référence pour ñu koy fal mu nekk secrétaire général du syndicat loolu c'est clair. donc yéen lan ngeen di xaar exactement. ci euh, état bu Sénégal mais ñun dañu xaar les autorités là état bi nañu def nañu def luy yoon ñun ñoo am légitimité ñoo légitimité ñoo am légalité ñoo am ay papiers yu leer na état bi def lu mu war a def. delloo ñu suñu àq ak suñu yeleef parce que benn syndicat FGTS moo am mooy syndicat FGTS bi nga xam ne Moussa ko moo koy diriger bu ñu nangu ñi leen di manipuler wala di leen di dugal seen yenn man maa am lépp maa am ay papier yu leer yi maa am résolution maa am maa am PV bu leer maa am constat d'huissier ñëpp ñoo ko gis Sénégal yëpp teg nañ seen bët voilà bu ñu indi fii yeneen problème état bi nag dama leen di interpeller lii nañ ci dugal nañ ci nañ ci def yoon bu ñu buggee jàmm am voilà. beneen bi bokk na ci tey yéen a ngi def jéego ngir perpétuer li nga xam ni itam œuvre bi nga xam ne tey Sidia euh, njaay bàyyi na ko fi déjà fan ngeen toll ci liggéey bi. waaye mais ñun ñu ngi ci xam nga man euh, ku ma xam xam nga ne depuis plus de trente cinq ans man ak Sidia Ndiaye ñu ngi ànd te man dama nekkoon si gannaawam di si lu mu nekk rek ma nekk ci. man ak suma ay xarit ñun dinañu continuer œuvre Sidia parce que œuvre Sidia du jeex c'est un c'est une c'est des euh, œuvres incommensurables kenn mënu ko nattable ñun si loolu la ñu nekk te Sénégal yëpp d'accord nañ ne tey l'héritier su fekkoon ne tey dañuy dono man may héritier légitime euh, euh, Siria Ndiaye si FGTS mais ñun jàppewuñu affaire bi héritage ñu dañ ko jàppee ay kayit parce que syndicat nit moo lay fal yoo doo fal sa bopp yow kenn falu la yow vingt secrétaires générau quinze yi ne man la ñu àndal yow nga taxaw ne da ngay ay nit par force loolu moo fi dul amee tey te su yaakaaree ne nag moom moo ñu ëpp moo ñu ëppale si réew mi wala moo ñu gën a xam réew mi ni muy doxee bu boobaa mu xam boppam. te yéen dèjà da ngeen def plainte. def nañu plainte devant le procureur de la république pour faux usage de faux ak usurpation de fonction loolu lu leer la te loolu duñ ko bàyyi dañuy continuer ba mu sës ñu nag moom lu mu bëgg rek ñun ñu ko ciy xaar ñun ñu dellu gannaaw man ak sumay xarit d'accord parce que ñun ñu nangu un usurpateur ñëw di nangu loo xam ne dañ ko liggéey pendant des années œuvre de temps de jour en un jour effacé su fekkee ne loolu la yaakaar ñun ñu liggéey ba pare duñu liggéey ba sonn moom mu ñëw jël ko suñu loxo kooku bu yaakaaree ne loolu mun na ko day nax boppam te ñu koy xaar nag bu fekkee ne dafa yaakaar ne moo ñu ëppale si réew mi ñun leer dina am léegi incha allah. Mm, d'accord Moussa ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa lay maa leen di sant yéen tamit di leen gërëm bu baax. di fàttali ni yow yaay secrétaire général bu syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux yaa yor kaddu yi intersyndical liggéeykatu collectivité territoriale yaay secrétaire général itam FGTSB bu Sidya Ndiaye. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf